aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul xoqdatam min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaan Touba Argentine TV fépp fu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di rafetlu ànd gu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi nag tey ñu ngi fii nga xam ne moom mooy Daaru Jóob di dëkk boo xam ne dëkku dëkkub ma sàmba Diop Sam la Daaru Jóob nag diggam ak Touba ci xayma ci ay kilomètres kilométrage war naa toll ci fanweeri kilomètres ak euh, ñeent ndax diggam ak diggante Touba ak Daarul Moxti ñaar fukki kilomètres la ak juróom-ñett diggante Daaru Jóob ak dëkk bi nga xam ne mooy Daarul Moxti juróom benn kilomètre lay toll di dëkk boo xam ne bu am taarix la ci yoonu Mouride ma Massamba Diop Sam nekkoon jàmbaar joo xam ne ku takkoo nag Cheikhul Khadim la moo sañ dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Diop Daaru Diop nag ñu am bis bu màgg boo xam ne moom la ñu dëgmal incha allah ci le 27 jii ñu jëm le 27 euh, janvier jii ñu jëm incha allah di màggal gu am solo goo xam ne dana fi am télévision Touba Argentine TV doxantu fi na fi yollu xool incha allah. fas yéene am waxtaan yu am solo yoo xam ne danañ leen ko indil dëkk bi nag macha allah gis ngeen ko guy yaa ngi nii tabaarkàlla fii ñu toll nag mooy penc mi nekk fi nga xam ne moom moo di ci teen bi Cheikh Samb moo ñu nekkal ci wàllum caméra bi Alaaji Goro Seck Argentine incha allah ak équipe bu Touba Argentine TV ci Sénégal lëkkaloo ak bi nga xam ne ñoo nekk ci Argentine fas yéene incha allah fii ba bis ba dara du leen rëcc ci li nga xam ne moo fas yéene am fi nga xam ne moo di ci Daaru Jóob kon Cheikh Samb sama cameraman dañuy daal di doxantu rek incha allah daal di yegg fi nga xam ne moom moo di ci biir kër gi incha allah fas yéene séq ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu xamal nu taarixu dëkk bi ak lan mooy cosaanal li nga xam ne mooy bis bi incha allahu taala ak programme bi naka la fas doxee. kanam tuuti incha allah lépp dina leer. وأني مهام القتل بري مع القلب إلى المصطفى وجهت ملغا مع القلب mbokk yi ànd ak euh, Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyuwaat comme ni ñu leen nuyee woon sànq ci euh, penc bi nga xam ne penc mu sell di dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Daaru Diop di dëkkub Serigne Massamba Diop Sam di mag ñi nga xam ne dañu toppoon Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim Khadim Rasoul ni ma leen ko waxee woon Daaru Diop euh, digganteem ak Touba war naa toll ci fanweeri kilomètre ak juróom wala juróom-benn ndax diggante tubaa ak Daarul Mooti toll na ci ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñett. diggante dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Jóob ak euh, Daarul Moxti war naa toll ci juróom benn kilomètre kon buñ ko xayma euh, ay euh, fanweeri kilomètre ak lu topp di dëkk boo xam ne nag dëkk bu am taarix la ci yoon wi kon su ko defee rek incha allah ni leen ko waxee woon bis bu màgg bu sell moom la ñu dëgmal niki vingt 27 ji ñu jëm incha allah di 27 janvier di màggal gu mag goo xam ne dafiy am Touba Argentine TV ki nga xam ne nag ci bopp bi El Hadj Gora Seck ci dëkk bi la cosaanoo moo tax mu fas yéenee bay awaaram équipe bi nga xam ne ñoo nekk fii ci présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arouna Cissé Cheikh Sambou euh, ci caméraman bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñëpp ci liggéey bi tey ñu doxantu fi incha allah fas yéene seq ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ngeen jàkkaarloog ñoom ñi ngi nii toog incha allah Serigne Abdou Diagne dina ñëw ci présentation bi ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew. incha allah su kàddoom daanoo danañu ànd ak Serigne Thierno Fall su ko defee incha allah Baye Thierno Fall di magi kenn ci magi dëkk bi fas yéene ñoo waxtaanal ci cosaanal dëkk bi euh, Serigne Cheikh Diop it incha allah danañu waxtaanal ci cosaanal màggal gi ak ñaata at lañ ko commencé def euh, Serigne Cheikh lay mi nga xam ne mooy euh, jëwriñ ji it incha allah danañu ñëwal ci organisation bi programme bi naka lañ ko waajalee. kon incha allah rek du ñu def lu dul jël kàddu gi jox ko Serigne Abdou Diagne euh, su ko defee rek incha allah mu euh, présente kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew kon sëñ Abdou asalaamaaleykum. di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi kon ni ko kilifa gi waxee rek jëwriñ ji muy sëñ Arona si présentation bi kilifa yi fi teew rek muy bokk na si ci Serigne Amsatou Diop ibnu Serigne Mbacke jaar bokk na si kilifa yu teew ak Serigne Amsa Diop ibnu Baye sëriñ sëriñ Sidi Diop ibnu sëriñ Thierno Diop ak sëriñ Abdourahim ibnu sëriñ Mortada bokk na ci jataay bi tamit ku nuy wax Cheikh Abdoul Ahad Lay muy chef de village dëkk bi bokk na ci jataay bi ak Baye Thierno Fall mu bokk ci mag ñi nga xam ne si ne àndoon nañoo ak sëriñ Modou bokk na ci jataay bi tamit tam nekk bilaalu dëkk bi. sëriñ Alaaji Diop tamit tam fekk ci ko ci kër gi bokk na ci jataay bi tamit ak mbooleem membre yi daayira bi ñëpp rek ñu ngi si jotaay bi fas yéene lé waxtaanee liggéey Serigne Massamba Diop Sam bi ñu nga xam ne si ne rawatina liggéey bii ñu jub muy bis bi kon jërëjëf. macha allah jërëjëf Serigne euh, Abdou Diagne ci présentation bu ci lenn ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi teew fi nga xam ne moom moo di ci jataay bi incha allah soxna yi danañ leen cëral genn kàddu kuy wax ci turu soxna yi incha allah ci kanam tuuti lay doon ginnaaw bu kàddu yi daanoo. kon bu ñu def rek lu nuyu lu dul nuyu suñu baay Thierno Fall moom tamit incha allah di kenn ci magi dëkk bi fas yéene ñoo junj tuuti rek ci li nga xam ne mooy histoire dëkk bi kon baay Thierno laaj bi ak nuyoo bi dañuy ànd su ko defee ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum ginnaaw bu sa kàddu daanoo sa nuyoo nga dikkal nu tuuti rek cosaanal dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Diop lan mooy sababu jàmbaar ji ma Massamba Diop Sam ñëw sanc si fii. nuyu nuyu ñëpp képp ku fi teew ci sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm lu sax dàkk fen wu gudd wu ànd ak wér ñu ngi leen koy ñaanal képp ku fi teew ku fi teewut te di leen xam ni dëkk bi moom li ma ci xam ci dëkk bi dëkk bi nag man li ma ci xam fanweeri at ak juróom-ñaar daal la la laa jàpp ne moom dina ko war a mat ci bañ koy sanc 1937 waaw waaye mooy 36 daal 2004 yooyu foofu daal lay laa laa waaw léegi nag bi ñu koy sanc sëñ bi nekk ña fële ca gent ba ñuy ñuy ga ñuy dugg fii teen di ko gas bi ñu koy gasit léegi ñu ne nañu buy tollu ci war a buy tollu ci war a war a war dañu koy wa dañu dañu fa war a jiitu mbënd ba ñu ñu ñu ñu daal di tànn si ñu ñu ñu ñu ñu seen bi mbënd ku ñuy wax Cheikh Diop Cheikh Guèye Thiawène moo mënoon ca gas ba ku ñuy wax Cheikh Guèye Thiawène moo mënoon ca gas ba waaw kenn mënu ko ca hmm. dëgg la bu yàgg la boo xam ne daal am na taarix ci ndigal sëñ bu mag bi ak maam Thierno maam maam Thierno sëñ ma waaw sëñ Masamba kay moom moom moo ne sëñ Masamba moo ni sëñ sëñ Touba moo ni Masamba ak sëñ maam Thierno dañoo bëgg kenn ku ne dencal sa morom mu ni ko cee man de benn sëriñ lay am moom sëñ ma benn sëriñ lay am ndax bu ma takkee doomi Thierno ñaari sëñ lay doon man nag dinaa ko jox sans doom man mu daal di ñu daal fa soxna fa daam boole ko soxna Diop ak ku ñu wax Faati Bintu indi leen indi leen dër waa daaru eh, waa dongoy dongoy saam a ngi fi de ci eh, di dëkk bi nga xam si ay taalibe lañu di bay di yóbbu ba ci yàgg muy leen bu kenn indi te addiya yamee leen addiya ya daaru daaru daaru addiya di fa jógee di ñëw daaru saam daaru saam kon nag nañ ko bay bokki taalibe bi daje bokki jullit yi ñu ngi leen nuyu ñëpp ci turu sëñam Sadu Jóob mi nga xam ne mooy njiiteel uh, ndaje mi di siyaare Cheikh taxa Mbacké di ñaan sama borom guddal fanam lool yokk wéram di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar suñu boroom ah, yokkaleem taar suñu barkeem ah, ñu ngi sant bu baax nag seen teewaay fii ah, dëkk bi moom dëkkub jë dëkkub ci sant boo xay ñu ngi ko sant ci ndigalul sëñ Serigne Touba moo joxoon ndigal suñ Massamba Diop ni ko dama dëkk ak Thierno comme ni ko Baye Thierno Fall waxee woon léegi rek daanaka jëruñ ci deesuwaat. ah dëkk bi nag moom dëkk cosaan la dëkk bu xay ay taalibe bi rek a fe ne ñu ne ci ndigal rek nag moom ci leen ñuy saanoy ah bu dee nag li ñu wax ci a dëkk bi moom ah, bari na am na lu ñu luñ manqué loo bari lu mel ni xeeti courant beeg yooyu yëpp xaw naa manqué waaye nag loolu nag moom ñu ñu ñu ngi ñu ngi ci yaakaar ndimbal rek li ko indi ba fii daal ñu ngi ñaan suñu borom dolli ko ba waaw fi mu ne war naa toll ci ay juróom fukki buntu kër daal yu tegal tuuti waaw juróom fukki buntu kër daal war na koo mat yu tegal waaw daa fa war a toll waaw ah kay ah kay am jànkonteeg ay sàcc xam nga fii moom léegi sàcc yi daanaka léegi kenn nangootul yor daal loo yor ñu bëgg koo nangu manqué na sécurité lool waaw waaye moom manqué na sécurité daal waaw. waaw wàllu santé bi moom ñu ngi ci yëngatu parce que am nañ euh, benn groupe bu ñu association OPET xale yi ñoo ko taxawalan wax dëgg fa tabaarkàlla ñu ngi ci góorgóorlu bu baax ndax la jiitu loolu ab poste santé fi nekkoon ab kaas fi nekkoon kaas bi wax yàgg na fi lool manqué nay garab. waaye xale yi def nañ fi station boo xam ne si tabax ñu fi tax ab poste santé tabax nañ ci ba tubaarkàlla brasé na ba xadd nañ ko dox na bu baax daal xam naa loolu bëgg nañ ñi nga xay ñoo war a yor loolu ñu jàpp ci bu baax ndax euh, loolu dëkk bi rek ko def te it affaire yaram ab état moo ko war a yor kon nag ñu ngi tàllal loxo bi état ñoom ñëpp ñu jàpp ci ndax escan wi seen escan na ah kon nag boo doomu dëkk bi dajalee lu toll noonu def ko fi ba tam tollu fee kon ñu ngi tàllal ñëpp loxo ku ci war a jàpp xam nga ni daal fii population bi jàppale am na lu ñu manqué loo xam si ni état bu xam nañ da cay seen wàll kon nañ ñu doxee ko daal waaw. politique saa yi de moom am nañ ay leader ñu fi taxaw comme suñu seex lay mi am nañu fi nekkal ak bay benn benn politique waaye xam nga politique Sénégal mu léegi mooy moom moom mooy lool waaw ko waxee li waral suñu teewaay fii tey nag mooy bis bi nga xam ne dëgmal nañu ko. kon du ñu def lu rek jox sëriñ euh, Madiop Sène moom tamit euh, war a wax ci li nga xam ne mooy sababu bis bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu kon ñu boole laaj bi ak nuyoo bi su ko defee sababu bis bi nga xam ne moom la ñu mën la le 27 ji ñu jëm euh, su ko defee rek nga dellu si waatal ni lan mooy sababu màggal gi ak bañ ko dalay def ak léegi ci ñaata at lay toll. leen di nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam si ñoo ngi seetaan ci Touba Argentine TV jégalu bu baax si bi ñu yëkkati comme ni nga ko waxee rek màggal gi moom euh, li tax lii sabab bi mooy sant Serigne ma Serigne Massamba Diop Samb euh, dëkk bi Serigne Modou Massamba di taw ma Massamba moom moo ko sanc ma waraloon ndaw yi nga xam si ñoo nekk ci dëkk bi ñoo sosub daayira bu ñuy wax daayira sant ma Massamba taxawal ko ci euh, jëwriñ yu bari nag jaar nañ fi jëwriñ ji ci nekk fi mu toll nii di Serigne Cheikh Lay moom moo ko moo ko jiite. ba tey ñu ñëw ci euh, bokk ci bureau bi nga xam si mooy piloté màggal gi euh, euh, bokk ci organisation bi yore wàllum ñi nga xam si moo di moo di finance bi ñun ñoo ko yore ak jeneen jëwriñ yu si nekk kon daal màggal gi lii sabab bi mooy sant Serigne Massamba Diop Samb ci li nga xam ne si ni moom la liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba may ko ko ndax ku nekk xam na Serigne Massamba job Samb fi mu toll ci yoonu Serigne Touba Khadim Rasoul loolu moo waral sababu màggal gi ñu ngi ciy woo ñëpp nag. aw daayira bi ñoo koy def waaye am na yeneen daayira yoo xam si ñoo ngi ci dëkk bi ak daayira bi tamit dafa yaatu ndax am na ñu nekk euh, Afrique du Sud am na ñu nekk Italie partout dans le monde euh, am nañ fa ay sections yoo xam ne ñoo fa nekk yoo xam si ci daayira sant Serigne Massamba Diop lañ bokk. am ñoom fi tamit ay association ak yeneen daayira yoo xam ne ci biir dëkk bi lañ nekk association bi ñooñ tamit ci biir màggal gi leen bokk. kon euh, ñu ngi ciy woo bépp autorité boo xam si. Euh, yaa ngi dégg suñu kàddu ñoo ngi lay ñoo ngi lay woo ci màggal gi waa bitim réew ñoo ngi leen ci woo euh, euh, Italie waa France waa Espagne waa Allemagne di ci woo waa Argentine di ci woo waa Brésil di ci woo waa Afrique du Sud waaye di ci woo ñi nga xam si ñoo nekk Canada ak Amérique partout dans le monde daal fépp foo xam si ni taalibu Serigne Massamba Diop Sam taalibu Serigne Touba ma nga fa ñoo ngi lay woo ci màggal gi. di la woo ci lépp nag moo xam sa sa maanaam euh, di côté financière boo ñëwee la wala tamit euh, nga ñëwal sa physiquement sa jëmmi bopp ngir sant lañu ki nga xam si suñu jàmbaar ji nga xam si mooy ma Massamba Diop Sam ndax moom rek lañu am kon suñu koy sant dañuy bëgg képp koo xam si ni maanaam euh, suñu suñu suñu suñu am di jàmm nga ñu woo la ci ngir nga sant lañu ko. waaw ñoo ngi ci woo ñëpp daal di ci woo mbokki dëkk yi nga xam si ñoo ne ñoo ñoo ñoo nekk aux alentours de Daaru Diop Daaru Moxti di ci woo waa Fass Touré di ci woo waa Touré di ci woo waa ñëpp tamit ñoo ngi leen ci woo ak waa Dakar di si woo tamit waa Mbour fépp foo xam si daal section daayira bi ma nga fa ñoo leen ñoo leen ci woo ci ci màggal gi. màggal gi nag li ko waral ak li ko sabab mooy sant sëriñ Massamba Diop Cham ndax bi nga xamee ni si commencé nañ koo def yaakaar naa su ma juumul 93 ci la tàmbali woon ñu commencé ko def boo ko seetee mi ngi toll ci 27 édition ci la toll fi mu ne nii 27e édition yaakaar naa bu ma ci la toll. Euh, jàmbaar ju di xalifa sëñ Massamba Diop doon doomi sëñ Massamba Diop Sam moo nu ci ñaanaloon joxoon nu ci ndigal na saa ci barkeem moo nu ci joxoon jox nu tur yi tudd leen ko sant sëñ Massamba Diop ñaanal nu ci itam soobee yàlla ci kanam rek lay jëm du dellu ginnaaw mukk ba nga xamante ni commencé nañ ko def it moo nu ci jëkk liñ ci daan jëkk def moo nu ko joxoon muy baytu suukar ak attaaya ñu ko daan attaaya moo ne ko jëkkoon a jox bi muy door ñeent fukki dërëm lañ doon teg te tey àgg na ci góor 5000 jigéen 1000 francs kon ñaanam googu saa borom nangu na ko waaw parce que tax ñu ngi koy ñaanal saa borom yokk ay leeram te taas ci barkeem. Euh, bi nga xamee ne commencé nañ ko ñu comme ni ko Cheikh ma Diop seen waxee rek jëriñ yu bari jaar nañ fi ba tax na ba yàgg saa borom dugal mu ñëw ci samay loxo bi mu ñëw ci samay loxo léegi mu ngi wala juróom-benn at lay toll bi ma ko ñu ngi ci sant yàlla sunu borom bu baax nag boobaa léegi ñu ngi ci gis ak yokkute ba tax na ñu ngi ci sant yàlla bu baax ren jii nag ñu jël ko màggal gi sant sëriñ ma Samba Diop Sam ñu jël ko maanaam tudde ko maam Thierno Ibrahima Fati ndaamal Daaru Muxti comme nu ko Baye Thierno waxee rek nga xam ne sëriñ ma Samba ak maam Thierno moom yàgg na waaw kon moo tax na kon màggal gi te ñu ngi ko tuddee maam Thierno Ibrahima Fati ndaamal Daaru Muxti ci ndigalu sëriñ Abbas Mbacke ak mboolem jabatug borom Daaru Muxti gépp màggal gi nag moom ni muy doxee mooy ah bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraanul karim mu demee ba takkusaan nag ci lañu amoon cérémonie boo xam ne si ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xam dëkk nga ci dëkk bi ak kilifa goo nekk ci dëkk bi ñu ngi lay woo kilifa gu mën a doon rek ñu ngi lay woo ci bis bi bu heure boobu jotee 5 heures ñu ñëw ci bâche ba ci lañu amal cérémonie officielle boo xam ne si dañ fa amal benn waxtaan boo xam ne Serigne Cheikh Diop Taïf mooy def waxtaan ba bu demee ci guddi gi ci ci guddi gi bu demee ba une heure jot am na jànkat bu fi barkeelu muy Baye Sall Nguer des ci gi rek sëñ Mara Seck ñoo koy def maanaam njàngam alxuraan bi nag Cheikh Siri Diop mi Serigne Siri Diop mii di ibnu Serigne Thierno moo ko jiite ak maam Mor Lay ak Serigne Bakke Diop ñoo jiite njàngam alxuraan ma moo tax ba tax na màggal gi wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax ñu ngi ci gis ak yokkute bu am solo ndax wax dëgg yàlla man ka dale def ak léegi yàgg na te wax dëgg yàlla boo seetee lii nga xam ne moo nekk ci penc muy mbaar mee nga gis waa dayri bi ñoo ko taxawal ba mu àgg fee te kon dayri bi am na solo trop ndax mi ngi def ci dëkk bi loo xam ne si am na solo ndaxte tay boo seetee lu bari lu ñëw ci dëkk bi rek ci dayri bi la jaar ba tax na kon ñu ngi sant yal dayri bi sant sëriñ ma Samba Diop Samb la tudd dayri sant sëriñ ma Samba waaw màggal gi ak dëkk bi waaw dëkk bi ndax boo déggoo mel ne mbaar mee ngay gis mu taxaw dayri bi ko defar te xam nga ne mbaar moom xaalis bari ci dem te aussi itam lu jëm ci matériel dëkk bi lu mel ni ay bâche ay chaise loo xam ne daal dëkk bi bu ñu xewlee dañ koy soxla daayira bi dañ koy liggéey dañ koy wut ba tax na kon képp ko xam si bokk nga ci daayira bi ci dëkk bi la koy waaw ci génnu dëkk bi waaw lépp loo xam ne si daal lu baax ñu koy def ci dëkk bi daayira daayira bi mu ngi ci lu mel ni jàkka ji lu mel ni poste de bi yëpp dañ ci fab suñu loxo da ci dugal lépp lu xew ci dëkk bi bu bi day jël loxoom da ca def kon daayira bi moom li muy liggéey lépp mi ngi ko jëmewaat ci biir dëkk bi ba tax na ñu ngi ñaan képp koo xam ne bokk nga ci doomu dëkk bi rek nga jàpp ci dayra bi sa fukki loxo ak juróom ndax dëkk bi la ñuy liggéeyal bëgg dëkk bi jëm kanam bëgg dëkk bi fu dëkk di àgg rek dëkk bi waaw dëkk bi maanaam comme ni ko Cheikh Amadou Diop seen waxee dëkk bi dayra bi dëkk bi la sosoo mais teewul euh, euh, Afrique ak Sénégal gi ak fépp bokk nañ ci dayra bi ndax boo demee Italie am nañ fa section boo demee euh, Afrique du Sud am nañ ko fa boo demee Arsène waaw boo demee Argentine am nañ ko fa boo demee ci ci ci région région yi am nañ ko fi ci boo demee ci Afrique yi am nañ ko fi fépp doomu Daaru Jom nekk rek ñoo nga fa nekkal fi daayira bi di dajale seeni teg di ko yónnee ci ci màggal bi ba tax na tegu Italie ñëw na Argentine egsi na Afrique du Sud egsi na Afrique it fi nekk ñëpp bi Sénégal ñëpp seen i teg egsi na ci rek fii nag dañuy def su màggal gi jubsee ñu woote ay réunion di laaj teg yi ku mel ni Baye Cheikh màggat war nañ ko sax ñëwut ak Xaadim Jom mii ñoom nañuy jébbal euh, wàllu tegi ak am satu lay mi ak ku ñu wax mbay jóob ñoo ñoo nga xam si mooy laaj tegi ci dëkk bi ak wàllu soxna yi itam dañuy joxe teg kon soxna Njawa Jaw soxna Mati Sey ñoom ñooy laaj wàllu soxna yi ci dëkk bi ak soxna yu ndaw yi soxna Bintu Lay ak soxna Caam Fall ñooy ñoo ko ñoo yore wàllu googu xam ne dañuy laaj teg ci biir dëkk bi loolu noonu daal daayira bi dëkk bi moom ñu ngi koy waajal bu baax wax dëgg yàlla ñu ko war a waajale ndax ba démb lañ def réunion bu mujj bi ci dëkk bi wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy waajal bu am waajal bu am solo ñëpp jàpp nañ ci dëkk bi ñëpp jàpp nañ ci képp fu doomu Daaru Jóob nekk jàpp na ci fu mel ni Touba Mbacké get am nañ nga xam si dañoo cosaanoo woon ci dëkk bi te tuxu Touba dañuy ñëw di participer dañuy teg li dëkk bi teg la ñuy teg di joxe bu màgg gi jotee ñoom ñëpp dañuy wàcc seen itte ñëw ci dëkk bi ñu ngi sant nag mboolem njabootu sëñ Massamba Diop Sam gi ndax ñoom it buñ ko wootee ñoom nekk day ñëw day teew ci bis bi di ci dugal seen loxo ñoom it ci bis bi kon ñu ngi leen di sant ñoom it di leen gërëm di ñaan saa guddal seen fan wéral seen cër tax seen taxawaay mat na te wax dëgg yàlla dëkk bi gone yi am nañ pas-pas boo xam ne ak yéen a joo xam si dëkk bi jëm ca kanam comme ni ko bàyyilaat ko tàmbalee ak léegi yàgg na tax dañuy def extension boo xam ne weeru dee kenn ku ne day def 1000 ci kanam nga xam si kon léegi loolu tam ñu ngi ñaan kilifa yi ñaanal nu ci ban am taxawaay bu mat sëkk saa borom jàpp nañu ba yéen ci dëkk bi duñ ko bëgg ñu amee ko noonu barke Cheikh Massamba Diop Fall. ne Touba Argentine TV euh, amal na ko ci dëkk bu sell bii nga xam mooy Daaru Diop waaye ki nga xam ne nag mooy boroom yëf yi ci dëkk bii la cosaanoo muy Serigne Gora sekk euh, di seen doom di ñenn ñi muy seen sët. soo ko defee lan ngeen di wax ci ci bi ak tamit naka ngeen koy gën a ñaaxee su ko defee rek ci tënk yaay joxe kàddu gi wala geneen kilifa koy wax lu ci mën doon mais nag euh, seen doom la doon doomi dëkk bi. am initiative mel nii su ko defee it kon euh, naka ngeen koy soññee rek incha allah. mooy dongay laxasaay yi nekk ci dëkk bi yi fi jaar ci dëkk bi ñoom it ci dëkk bi leen jaar di fa lax donga laxasaay ba wàcc ku kii ma leen wax léegi muy Abdou Diagne mi ab donga la ci dëkk bi la nekk di muritu ba léegi wàccagut mais am na ñoo xam ne jaar nañ fii ba wàcc ci téewut ni doomu dëkk bi def ci dëkk bi moom la ñuy def baa ñu gën a bëgg sax doomu dëkk bi dëkk bi wax dëgg ay jàmbaar lañ ñu am pësteef lañ ci dëkk. màggal ca kaw ca kanam. te yéen ñi nga xam ne lii def ngeen ko ren yi bu déwénee bala leen ko kenn wax te ngeen jóg tax Daaru Jóob moom dëkk la boo xam ne lu ci waaye di sàkku di ko ca bëgg bu dee déwénee bala la ko kenn wax da nga jóg ndax da nga am sa yokk te boo xam ne da nga ko yëg ci sa bopp ndax sant sëñ Massamba Diop de kenn ku ne loo ci def sa bopp nga ko defal góor sekk nag noo koy sant ndax lii lu am solo la ndax bu fekkonte ne def di wut xaalis boo xam ne da nga koy dem di ko fay di ko indi mën naa bañ a demee nii ndax waar waar yi bari na jigéen yi it seen i bëgg-bëgg bari na ndaxte ñun daal ñoo ngi ci dëkk bi bëgg nañoo liggéey waaye amuñu lu ñu liggéey ndax amuñu ndox mu neex mun mën a liggéey ji amuñu marché buñ mën a liggéey amuñu leen loo xam ne mën nañ cee am loo ndox mu neex amu fi leen amu fi ndox mu fi ne sant nañ ci yàlla ndax sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke moo nu ko fi indil waaye nag bu amoon ndox mu neex mu ni mën a liggéey ji dinañ gën a sant waaw ndax bis bi nag moom sant ci yàlla rek sant sëñ Massamba Diop moom lan ko fas yéene def ba ndëkk eh, sant sëñ Massamba Diop bi daal képp ku nu ci jàppale danga ci yokk danga nga ci am mbégte ñun daal dëkk bi rek lan fonk moom lañ bëgg Daaru Diop nag deme na noo xam ne si moom ku leen jàpp yëg leen da ngay am sa yokkute ñoom nag kun ko jàpp moom duutuñu la bàyyi ba mukk ndax dëkkub daara bu bu ñu la wax moo fi nekk góor daara la jigéen eh, donga la ñu fas yéene murut rek lu nu sant la ni def lu nu tere la ni bàyyi waaye yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen fi ren bu déwénee bala leen fi kenn indi da ngeen fi indi seen bopp yàlla na ngeen fi indaale mbégte nag cay ñaanal góor a seek mi nga xam ne moo sabab lii itam nag la muy wut yàlla nag ko sëñ Massamba Diop yombalal ci darajey sëñ Fallou ca yàlla yàggal na fi sëñ Laaj Diop sama sëriñub sëriñ ba ci darajey sëñ Touba ak sëñ Sidi ñoom ñi toog ñëpp mbokki jullit yi mbokki taalibi yi fi teew kenn ku ci nekk ñi ngi lay nuyu te di la siyaara te la te di la massawu coono te di la balaq te di la balu àq itam tey ñaan itam ci barkeb sëñ Touba mi nga xam si moo fi dajale ak sëñ Massamba Diop waxtu wi ñu teewaat fii nag ni si déwén te kenn bañ a manqué mu ànd ak ak mucc ak tal bu loolu àggee itam ñi nga xamante ne télévision bi nga xam ne yéen a jël si lii jëm si ci wàllu màggal gi yéen ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te ñu ngi leen di ñaanal yàllaa tam ci barke sëñ Massamba Diop. bu ko defee yàlla mi nga xam ne si ku mu yokk ay darajaam say daraja fulu faw yàlla na ful seeni daraja te ful seeni bëgg-bëgg ba lépp lu ngeen xamee si seen bëgg-bëgg la di seen yitte ci saahir di seen bi yitte ci baatin yàlla jàppale leen ci ndax kuntum uma kuntum xeeru ummatin uxrijat linaas jooju bi suñ borom waxee ni xeetu Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mooy xeet wi gën ci xeet wi ñu ne ko ndax lan mu ne taamaruuna bil maaruf wa tanxawna anil munkar ñoom dañooy digle lu baax tey tere lu bon loolee ba mu agsee ci Serigne Touba bi ñu ko laajee ne ko kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mu ne taamaruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar nu ngeen ko jàngate mu ne di digle lu baax te tere lu bon bu ngeen yamee ci loolu rek prix mi day gàtt taamaruuna bil maaruf di digle lu baax te sax ca wa tanhawna anil munkar di tere safaan ba te kenn du leen ci seen kon nag loolu mooy cosaanul dëkk bi mooy jub. liggéey jaamu yàlla tënku ci ak taalibe tënku ci ci ndigal itam bu ko defee loolu nag bu amee mën na noo waat ni seytaane dana mucc ci ñun ndax Sëñ Tuubaa dama wax ni seytaane jóge ni fii fi ndigal te dootu fi si kon taalibe bi bëggee mucc rek na sax ci ndigal ndigal nag mooy waral màggal gi moo waral taxawaayu bis bi itam ndigal loolee nag ñu koy sàmm di ko wéyal ba ndëgën si di ci fàttaliku ko joo xamante ni si ni ku yàlla gërëm la ndax jaar-jaaram ak sëñ Touba yaatu na lool gudd na lool suñ ko doon jéem a wax fii danañ ci jël temps waaye ñu jéem ko résumé rek ngir xam ni sëñ Touba ci jëm boppam ku mu defar defaru nga te defar na jëm ji nekkan fii di ma Massamba Diop defar goo xamante ne si ni ak yàqu wees na ci ba defar laa na ñoo xamante ne si ni képp koo xam ni sax nga ci moom moo xam doom nga moo xam sët nga moo xam taalibe nga képp koo xam ne ne bëgg nga li nga xamante ne mooy bëgg-bëggu sëñ Massamba Diop muy liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal. loo bëgg lu nekk rek Sëñ Tuubaa daan la ko defal loolee nag mooy li wér te wóor fàttaliku dëkk alxuraan daf ñu ci indil inda sikri saalihiina tanziilu rahma waxtu ngeen dee fàttaliku gaa yu baax yooyee su ngeen ko yëgee ak su ngeen ko yëgut yërmande suñu borom mi ngi sottiku ci yéen kon mën mënoonoo gëm ni ndimbal suñu borom ak yërmande suñu borom mi ngi wàcc ci ñun Sëñ Tuubaa nag moom mi nga xamante ne si ni moo diggaleen sëñ Masamba Jóob sëñ Masamba Jóob fii mu di ko mu liggéey ko liggéey bi taxawaay bi ak mat gi ak pas-pas bi métti woon na lool gaa waaye sëñ laa Lahad da daan wax ni ab sanc boo gis bu nekk rek ka nga xamante ne si moo tàmbali woon sanc ba moo xam neexitu sanc ba waaye ki nga xam ne si sanc ba dafa neex mu ñëw rek xamu neexitu sanc ba kon nag ñi nga xam ne si ñoo sancan dëkk bii daje ci ci ay métit métit ak i coona ak i pas-pas mën nañ cey lim ay magi taalibe yu bari borom kër gi ci la bokk kenn ku ci nekk sa pas-pas ak nangoo liggéey ak nangoo jaamu yàlla moo doonoon sa yitte ju mat sëkk ak taxawaay bu mat sëkk ba tax de kon nag yéen ñii di yéen waa télé bi ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa yàlla taxaw leen ndax bis bu mel nii de ku ñu ci jàppale ku ne ah ñi ngi sant yàlla bu baax de waaye nag danañ gën a sant yàlla saa su nekk danañ gën a sant yàlla surtout nag ki nga xamante si mooy doom doomi dëkk bi di Gora sekk ku ne xam na ni cosaanam fii la fii la fekk baax fii la waajuram yëpp nekkan fii la daan liggéey la sëriñ Touba fii la daan liggéey sëñ Massamba Diop waaye loolee ba tey tam mu ngi koy continuer di ci jàpp ba dëgg ni si di ko doxal ba dëgg si ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi surtout xale yi te dañuy wax ni nag ndaw amut mag amut borom pas-pas rek moo am mën nga nekk mag te doo am pas-pas mën nga nekk ndaw te am pas-pas soo amee pas-pas rek mën a dem pas-pas rek moo yóbbu nit muy xaqida yal nañu ko yàlla defal te saxal nu ci ginnaaw ñi nga xamante si ñoo fi teew ñëpp ci yi nga xam si ñoo di wàllu kilifa yi ñëpp la ko tàmbalee ci kilifa yi fi nekk ak yi fi nekkul yëpp la ko tàmbalee ci sëñ Abdourahim mi nga xam si ni moo di borom dëkk bi di xalifa général dëkk bi ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral cëram te yàlla yeggaleel ko yéeneem te mottalil ko mébétam ba mu fekk nu fi ñun ñëpp ci barke sëñ Touba mi nga xam ne amuñu lu dul moom sëñ Samba Diop nag neex naa wax yaatu na gannaaw gudd na waaye gàtt na waaye loola lépp liñ ci jublu lépp nag xam le ni rek moom de boroom yërmande la woon boroom pas-pas la woon ku yàgg liggéeyal sëñ tubaa la ba sëñ tubaa gërëm na ko ci ngërëm yu bari ci ñu baree teew nañ ci ñu baree tam xam nañ ko gannaaw loolu nag waxtu wi moo nu ko dul may waaye daal ñi nga xam ni sant nañ yàlla ñi nga xam ne tam sant nañ leen ginnaaw bu loolu wéyee itam nag waa gone yi nga xam si ñoo taxawal bis bii ñoom de jàmbaar lañ lool ndax bis day képp koo xamante ne si ni xam nga bu wér ni soo ca jàppee taxaw ca dox ca sëb dëkk dox loolee rek mooy seen yitte mooy seen pas-pas amuñu lu bëgg amuñu lu dul bañ luñ bañ lu dul dëkk bi jëm ca kanam sëñ Tuubaa mi nga xam si moom la ñu jëfal nag jaare ko ci barke sëñ mi nga xamante ne si mooy seen jëwri sëñ Tuubaa yal na leen teel seen tànk te musal leen ci lépp luy waral am ndog-ndog nag bi jaay Seexul Xadiim barke sëñ Masamba Jóob sax ginnaaw bu loolu wéyee nag. ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm tey xam ni bis bu mel nii su taxawee laaj na yu bari laaj na sécurité laaj na santé laaj na physique laaj na finance waaye yooyu yëpp bu ci amee ah ñi ngi sant yàlla ba kenn ku ci nekk ci ku dëkk ci dëkk bi ku ne am nga ci pas-pas bu tax bu mat sëkk ci taxawaay bu met nii ba tax na nag kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm am na yeneen i kilifa nag yoo nga xamante ne si ni war nañ fee teew te teewuñu fi xam naa mbetteel ni toll. wante ki leen fi taxawal nag mooy di sëriñ am sutu mii moom mooy ki kilifa gi nga xam si moo mag ci jotaay bi ki nga xam si mooy magum taale bi mu fi mag it mooy Baye Thierno bi ñu ci topp ñëpp dem yeneen i kilifa yi nga xam si moom mooy sëriñ Sidi mi di sëriñ euh, Abdourahim ñëpp ñu ngi leen di ñuyu te di leen siyaara tey ràññiku seen pas-pas ak seen yéene ak seen euh, taxawaay ci bis bi ah ni ko gone yi waxee nag ak ni ñu ko bëggee képp koo xamante ne si ni doomu dëkk bi nga. wala nga nekk ci dëkk bi wala nga ñàkk a nekk ci dëkk bi lii ñoom nin bëgg nin bëggee taxawaay boobu ak nin bëgg organisation bi nañ leen ci dimbali taxawal leen parce que loolu moo di sagal kon nag saa su nekk ñi ngi leen di ñaanal yàlla taxaw leen te taxawu mbooloo mépp la jërëjëf Serigne euh, Amsatou Diop euh, moom Baye Serigne Diop ci leeral yu am solo yooyu moo ñu doon tëjal li nga xam ne moom moo di jataay bi donc li ñu waroon a résumé lépp moom euh, résumé na ko tënk na ko kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm ci leeral yu am solo yooyu sant képp koo xam ne rek jël nga fi kàddu leneen li ci des incha allah bis ba lay doon la vingt 27 ji ñu jëm yemook samedi incha allah rajo euh, télévision Touba Argentine TV fas yéene dara du leen cëre ci rëcc danañ ñëw incha allah ànd ko ak yéen ci bis bi ñuy ñaan suñu borom yóbbu ci ak jàmm. kon ñi ngi sant képp koo xam ne rek teewoon nga jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di la gërëm di sant it ñi nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne ñoom ñoom laa àndal te bu ma ci tuddee Cheikh Samb rek macha allah doy na sëkk euh, ci présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arouna Cissé la woon Touba Argentine TV fii ci Daaru Diop ngir waajal bis bi incha allah le 27 ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.